je me présente Diogomaye Thiam anima euh, habitant du quartier voilà depuis mine de rien 2002 ba léegi nii man maa ngi dëkk ci koñ bi mais lii fii laa ko fekk te bu ma nekkee gone di fi jaar dem stade aussi lool mi ngi fi woon kon lool noonu ba léegi 40 ans 50 ans je peux dire que ni mi ngi fi ba léegi sans changement te su dee ci rek dundin bi ñuy fii dund ñun ñuy fii nii ci biir koñ bi wax dëgg yàlla ak yéen bis coono képp lañ ci jëlee ndax yooyaak ñuy bëgg rey xet gu métti mi ngi ñuy bëgg rey mel ni aussi dañuy dajale lépp li nga xam moom mooy mbalit salte rek ñëw di ñu ko xëppal fii suñu koñ bi amuñ ci benn intervention wax nañu nag bay bëgg a dee maa ngi tudd Mboulé Diop dëkk Grand Diourbel di xëy di liggéey si fii ci mbogo bi chaque jour bu ma xëyee fii laay ñëw di liggéey si di wut lu ma am ma ñëw gis côté bii ni mu mu doon loo xamante ni rafetlu wuñ ko ndax bu ñu sañoon ñu defaral ñu fii ba mu rafet ndax suñu classe gi nga xamante ne chaque jour bu ñu xëyee fii la ñuy ñëw di wut si lu ñu am di pour yóbbu njaboot ga defe naa ne kon fii buñ ñu ko defaraloon ba mu rafet wutal ñu fi ay cantine dinañ ci mun a jàppandu defar suñu dëkk ndax ñun njaareem lañu am te bu ñu sañoon daal kenn duñu yóbbaale ci dara te fii nim me dafa rafetut jaaduwut salte beeg tilim beeg lépp limu mu melni da daa rafetlu wuñ ko ñu bëggon nak képp ko xamantene ni mën nga cee def sa loxo nga jàppaliñ ci defaral ñu fi ba mu gëna rafet ñu mën cee liggéey wa Kër bay laay nga joggé fé di ñëw di liggéey ci fi wa pikin wa garanjur Diourbel ñun ñëpp parce que presque fi ñu fi dajé yëpp ñu fi dañuy ñëw di fi liggéey ci rek motax ñu bëggon dal ñu wa ndiarém am amnañ fi ay ñu ñu mëna a tamit amna ñu ñu mëna jappal té li ni du ma ne man rek maa ko gis ñi ko gis bari nañ fi te sama classe gi nga xamante ne nii euh, bëgg nañ ku leen ci jàppale bari na torop bari na torop. soo dee xool lii nii ndox mi nawet dina ko fi fekk dina ko fi bàyyiwaat ñëw fekkaat ko fi. kon pour jëlee ko fi aussi du yomb parce que ndox mi mi nga xamee ni que naaj du ko ŋacc dara du ko ŋacc heure boo ko fi fekkee mu taw ak mu ñàkk taw dafay fees del nii la mës di mel nii la mës di mel te aussi yaakaar naa ni am ñàkkul ay experts yi nga xam ne am nañ ci euh, xam-xam bi nga xamee ni que war nañ ci dimbale ba au moins jëlee ko fi ndax terrain bu yaatoo nii au cur de Diourbel très franchement parler jekkoon na ci leneen lu ci lii mu mel lii nii biir Diourbel yéen a ko gis mi ngi ci xolu njaarim xoolu njaareem diggante marché bi ak tali bi jëm euh, Kaolack kon franchement parler xoolu njaareem la kon war nañ ñu mën a xool fii nii euh, nan lañ koy mën a dimbalee dimbale ci population bi dimbale ci askan wi nga xam ne ñoom ñoo fi ñëw a chaque fois di fi dóore si waar. waa man maa ngi tudd Naimi Diagne maa ngi dëkk fii ci daral fi laay sama koñ bii de ndox meeg salte bi moom jaaxal nañu parce que ñun ñi ay mère de famille lañ buñ sañoon ñu génneel ñu fi mbalit mi ak ak ndox mi yooyu dañuy bëgg a bu nawet bi dikkee. moom marché la. milieu boo xam ne la nit ñi dañ fii daje chaque jeudi ak lundi marché bu xumb la mais buñ ko harmoniser moom wax dëgg yàlla marché la ah ndox mi moom ku ñu ko defaral daal mbalit mi jóge fi ñu def fi ay cantine euh, daal di mën fiy jaay di fi defar suñuy bagage ak suñuy affaire tamit dina dinañu neex soo xoolee fii xam ne ci marché bi la bokk ndax daral baa ngi nii mbogo mbogo yaa ngi nii dara lu xar yaa nga ne ñoom ñëpp aussi milieu bi lañ am ndox mi di leen fàttali leen bëgg a rey te su nawet bi jotee sax circulation bi pour intégrer milieu bi day doon sérieux problème ndax yoon yëpp ay fatt ndox mi moom moo koy taawal te lépp li ko waral moom mooy euh, yoon wii nga xam ne yoonu ndox la depuis kon na kuñ ci dimbale woon ne serait-ce sax ñu. ñu aménagé ko yaatal ko ba mu yaatu jëm fee def ay cantine yaatal liggéey bi ñi nga xam ñoo ñoo sàkku si ay liggéey am nuñ koy mën a amee ba pare mën ñoo au moins mettre à l'abri ñun ñi nga xam ñun ñoo fi dëkk moytuloo ñu yooyu au moins parce que yooyu ñëpp xam nañ ni porteur de virus lay mën na laa euh, yan jàngoro. waaw te dëgg-dëgg nag aussi ku ñu ci dimbalewul ñu jël.